asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu uh, mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar leen baalu àq leen baal àq uh, ñun waa Touba ci kanam la commission des finance ñoo ñëw fa yéene leen a indil li nga xam ne mooy bilan wu weeru mois de juin deux mille dix-neuf bi uh, ñu jaarale ko nag ci sous commission bi nga xam ne moom lañu dénk saytug lépp lu gestion wu fonds ñu koy woowee sous commission gestion des fonds euh, ci mois de juin bi nag Touba versé na trente million deux cent quatre-vingt-seize mille sept cent francs ci mois de juin bi ba tey Ndakaaru ci njiitul baay Serigne Bousso ak euh, Serigne El Hadj Ndaw versé na trois million sept cent dix mille neuf cent francs Pikine ci njiitul Baye Ablaye Ndiaye versé na mille francs Orange Money bi dièse cent quarante quatre cent vingt et na quinze million quatre cent cinq mille quatre cent quatre mille Tigo Cash bi moom it ci soixante seize deux cent soixante huit vingt huit vingt huit bi versé na cent quatre mille cinq cent un francs Mbacké ci njiitul soxna Adja Dior ak soxna Mbène Mbacké versé nañ sept cent quarante huit mille francs euh, tiib ci njiitul soxna Khady Dieng versé nañ cent mille francs njaareem ci njiitul soxna Daba Mbacké ak El Hadj Lay ak soxna Ndey Ndiaye versé nañ un million huit cent soixante dix mille Saint-Louis muy Ndar. ci ndiitul Serigne Rijal Seck ak Soxna Rama Fall versé nañ deux cent trente six mille francs Kaolack ci njiitul sëñ Moustapha Touré versé nañ six cent soixante mille francs Mbour ci njiitul Mor Sorang Mbour versé na cinq cent quatorze mille deux cent francs Louga ci njiitul Serigne Moustapha Bassirou Mboub versé nañ six cent quatre mille cent département Kébémer ci njiitul Serigne Gora Sylla ak sëñ bu Kébé versé nañ cinq cent quatre-vingt mille Ourossogui ci njiitul Soxna May Mbàkke versé nañ cinquante mille francs Touba Belel ci njiitu Soxna Soodu Diop versé nañ cinquante mille francs Thiès ci njiitul sëñ Mbay Sàll versé na cinq cent mille francs versement jaayante yi nga xam ne mooy jaayantey làmp yi am nañ ci quatre cent dix mille francs versement yi nga xam ne dafa am ñi dem ci banque bi di verser te duñ joxe seen tur wala ñu koy dugal fenn nga xam nangu ñoo joxe seen tur ñu koy woowee versement anonyme am nañ ci cinq cent quarante mille trois cent quarante francs euh, Paris Ndiaye gi nga xam ne mi ngi ci wetu Thiès ci njiitul soxna Fatou Ndiaye versé nañ trente cinq mille francs daayira baabul di añaam versé nañ cinquante mille francs ku ci njiitul sëñ Ibra Ñaan versé nañ quarante mille francs Joal ci njiitul sëriñ Basiiru Thiaw versé nañ cent mille francs bukki jaawe ci njiitul sëriñ taalakan versé nañ soixante treize mille francs Koungheul ci njiitul sëriñ Yuusu Surang versé nañ deux cent cinquante mille francs Tiwaawan ci njiitul Serigne Mamadou Diop versé nañ deux cent soixante-dix mille francs li nga xam ne xaalis bu ñu delloo si la mu ngi toll ci cinq mille huit cent cinquante nga xam ne ci banque yi ñoo ñu ko retourné la. Weli euh, Ngara si njiitu Serigne Mbacke Gueye versé na cent soixante-dix mille francs kon zone nationale bi li nga xam ne moom lañ dajale ci mois de juin bi mi ngi toll ci cinquante sept million six cent cinquante cinq mille quatre vingt francs cinquante sept millions six cent cinquante cinq mille quatre vingt francs euh, li nga xam ne nag moom moo jëm ci université wu tubaab yi nga xam ne sëriñ bi daf ñu fi jox ab liggéey ñu koy def nañ ci ñëw ci ci cat li euh, am nañu ciy dugal li ci jot dugg ci weeru juin bi vingt mille francs la toll euh, buñ demee nag ci zone Europe ñi nga xam ne ñoo fa versé Turquie sëriñ Abdoulaye Loum moo fa nekk. versé na quatre cent cinquante mille Espagne Serigne Malick Dieng versé na deux cent quarante mille sept cent quatre vingt trois francs euh, France Serigne Mourou Ndaw versé na un million neuf cent quatre vingt quatorze mille quatre cent Finlande Serigne Khadim Ba trois cent quarante sept mille cinq cent Italie waa coordination ba versé nañ cinq millions cinq cent huit mille cinq cent quarante et Allemagne. sëñ Abdoulah Salam Faye ak daayira Bayern versé nañ sept cent quatre vingt mille cinq cent vingt-cinq francs totalu zone Europe bi mi ngi nekk neuf millions trois cent trente mille sept cent quarante-neuf neuf millions trois cent trente mille sept cent quarante-neuf mille mooy li nga xam ne moo jógee Europe ci mois de juin bi bu ñu demee ci asi euh, fi nga xam ne mooy Liban Papa Alioune Badara Dabo versé na fa cinquante mille francs ñu ñëw ci zone Amérique Argentine ci njiitul Serigne Cheikh Ndiaye versé na deux cent deux mille bu ñu ñëwee États-Unis ci njiitul Serigne Soin bu Seck versé nañ dix sept millions huit cent soixante dix neuf mille cinq cent francs suñu ñëwee ci totalu Amérique bi yëpp dix huit millions cent quarante mille cinq cent dix huit millions cent quarante et mille cinq cent zone Afrique. bu buñ fi ñëwee Guinée Bissau ci sëñ Modou Atta Seck versé na sept cent cinquante mille Togo ci sëñ Assane Mar versé na cent quinze mille Côte d'Ivoire ci sëriñ Mor Fassa un million cent mille francs Algérie ci sëriñ Saliou Ndour versé na soixante quinze mille francs Ghana ci sëriñ Ousseynou Gueye versé na vingt neuf mille francs Mali sëriñ Alioune Waaj versé na neuf cent vingt trois mille cinq cent Mauritanie Serigne Ibrahima Sarr versé na neuf cent quatre vingt mille francs totalu li nga xam ne mooy encaissement yi buñ ci jëlee Afrique ci trois millions neuf cent quatre vingt mille cinq cent encaissé nañ ci li nga xam ne mooy mois de juin quatre vingt millions cent quatre vingt mille huit cent vingt neuf buñ ñëwee ci li nga xam ne nag moom lañ dépensé dañuy gis ne ci eh, liggéey yi ñuy liggéey ci chantier yi bu ñu demee ci Kër Gol ñu ngi fa dépensé ci mois de juin bi cinq millions trois cent cinquante deux mille cinq cent cinquante ñu ñëw ci chantier bi nga xam ne mooy chantier Boobareel ñu nga fa dépensé six millions quatre vingt mille six cent bu ñëwee ci bi nga xam ne mooy chantier wu Daaru Xadim ña nga fa dépensé deux millions sept mille francs ñu ñëw ci université bi ñu ngi fi dépensé six cent quatre-vingt-dix-neuf mille bu xamee ne ñëw nañ ci chantier Lansar nga xam ne Lansar sax du chantier mais ca poste de santé ba dañ faa jënd ay ordonance maanaam li nga xam ne ordonnancier la di ñuy defaree ordonnance defar fa ay cachet def fa it li nga xam ne moom mooy ay garab ndax booba dañoo waroon a tàmbali ñu war leen a jëndal pharmacie ba ay garab loolu lépp buñ ko boolee mi ngi nekk un million cent quarante quatre mille cinq cent. massification commission massification ci mois de juin bi ñu ngi dépensé huit cent cinquante cinq mille francs euh, oto yi nga xam ne ñooy oto yu Touba ci kanam yi ak moto bi fi nekk pour déplacement yeeg yooyu ñu ngi ci dépensé quatre cent deux mille quatre cent francs commission wu communication ñu ngi ci dépensé deux cent soixante cinq mille paiement wu salaire yi nga xam ne mooy ñiy liggéey Touba ci kanam ñëpp. ñu ngi ci dépensé un million sept cent trente deux mille cinq cent li nga xam ne mooy euh, kees gi nga xam ne moom boo nekk ci Touba ci kanam muy keesu siège bi transport collecteur yi nga xam ne ñoom ñooy jaayi ticket yi ak yooyu yëpp ñu ngi ci dépensé deux cent quatre vingt seize mille francs kon totalu décaissement bi mi ngi toll ci dix huit millions cent quarante huit mille deux cent soixante quinze francs dix huit millions. cent 848 mille deux cent quinze francs bi ñu jëlee li nga xam ne mooy mois wu juin nga xam ne dañoo dajale 89 millions 180 mille 829 loolu lañ dajale ci mois de juin bi yëpp dépensé 18 millions 848 mille deux 275 li nga xam ne moo fi des mooy 70 millions 332 mille cinq cent cinquante quatre soixante dix millions trois cent trente deux mille cinq cent cinquante quatre mooy li fi des ci mois de juin bu fekk see li nga xam ne moo fi nekkoon ci mois de mai. di quatre cent quatre vingt deux millions trois cent cinquante quatre mille six cent trente francs loolu mooy li fi nekkoon ci mois de mai bu ko soixante dix millions trois cent trente deux mille cinq cent cinquante quatre fekk see kon ci banque yi Touba ci kanam ci mois de juin au 30 juin ña nga fa am cinq cent cinquante deux millions. 687 mille 188 ci kaw loolu ñu ngi ñëw nag di sant ñi nga xam ne ñoo gën a jàpp ci liggéey bi muy waa Touba ci kanam yépp moo xam góor la moo xam jigéen la di leen jaajëfal dañuy sant ñépp waa kër Serigne Touba yi nga xam ne ñu ngi ci liggéey bi ñoom ñépp bàyyiwuñu kenn di leen sant cant go amulug go am ab tàmbali te amulug yam di xamle it ne ba tey liggéey bi nga xam ne moom la mun Mountakha jox Touba ci kanam mu koy liggéey muy université Touba ci kanam bi tàmbali nañ ko ba fi ñu toll li nga xam ne mooy liggéey yi tàmbali na bu ngeen seetloo ci biir kàddu yi bi ñuy wax ñu ngi ne institut islamique bi di université bi vingt mille francs moo ci dugg ci weer wi liggéey boobu nag bi biñ ko xayma dana toll ci lu bon bon huit cent million de francs ci gën ak néew ci gën gee néew dana toll ci huit cent million de francs CFA kon ba tey ci kanam mi ngi ciy tàllalaat loxo mbokki taalibe yi di ci tàllalaat loxo mbokk yi jullit yi di xam le ne incha allahu rabbi ni nga xamee ne noonu la ko sëñ bi bëggee Touba ci kanam dana ko ni taxawoo incha allah di waxaat ba tey ne bu ngeen seetloo ne weer wii tubaa ci kanam musta am lu ñu toll ci lim ci am ci weer wii kon loolu it ñoo ngi ciy sant waa àdduna bépp ñu kenn asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jaageen jëf